ñëpp damay bëri ak moom. parce que Serigne damay bëri moom. nañ nañ la xaaral ma woo perte yi. alxuraan karim damay bëri ak moom. tey ngaa moo gën a yow si yow. waaw Cheikh Niang rek la bëgg. nekk man la buuse. démb damaa seetaan benn signature contrat mbër mi naan du bëreeg caatu Ndakaaru seetaan nga ko waaw léegi man jox lan ma sa nañ ma jox caatu Ndakaaru loolu coow la père ji li ni coow la loolu coow la su ma ko daanee barke sëriñ coow xalal te mënumaa daan man xam naa ne mënumaa daan dama ko jaxase ak àdduna wool non day nangu fuuta yow waxal ak fuuta nii léegi-léegi fuuta yow libéré la rek man garaaw fuuta na la libéré yow ngi dégg na la libéré yow nga téye yow après man man dinaa bëri man amul problème man ma bëri combat bi euh, ma ñëw jaxase ko àdduna rek xawoon leen ni man mër duma daan ci arène bi loolu fuuta nii léegi léegi ko buusa nangu na nee na ma régulariser combat bi léegi balaa nga koo régulariser na la jox nga téye yow sa <laughs> ok mais yow ñagas lañ war a jox ñagas yow ñagas ñagas mooy. la. taatu Ndakaaru lii làmb accident la accident tel la. làmb naa gis signature ñu may daw jaman bëgguma loolu. parce que Serigne Touba Mbacke gisuma ko waaye si biir. mën na la ñaar ñaar. billahi wallahi dama koy daal. ak ñagas li mu la fi wax yow ñagas saaga na la. non ñagas bàyyi njaay ko tëgg mais lii accidentellement la lii làmb ju ñuy confirmé la rek. waaw waaw. mënu ma daal. Serigne Touba. waaw man de gis ko gis lan la xaar lan la xaar mën na saa mën na saa ñaar. am na am na trois combats trois victoires. moo waroon dëkk keroog moom ah. waaw. non non. kii loxo yi loxo yi kër yëpp kii tamit baax moom mooy mbër bu xew mu tudd bébé Elton. baax ah, mu tax mu la doon atte keroog. keroog gars yi dañu laa doon nag kër yëpp xool fooy dem ak foo dul dem keroog dugg nga stade gars bëgg nga attaqué bëgg laa bëgg yàq sa oto comprendre nga gars yi taxaw ñii dina saagaat yooyu yooyu moytu wóorul man moom dootuma ànd te yow moom. parce que ma xaw ma ah, lu mu dem gars yi di ko bi daal wax nga ni fan rek nga ci dugal. <laughs> Ah, yaa ngi fi de. doo la dem si kaw. gars yi di ko yuuxu. parce que Rasulullah naan ko benn fi am. man nag xaw lu mu def lu mu wax nag. ba gars kar di wax ah mooy Gane Sawar Mar mooy Gane Sawar Mar daal di. mooy Gane Sawar Mar. daal di lan bi dafa def lan.